professeur euh, maa ngi lay nuyu. ñu ngi leen sant. voilà nga nekk euh, professor ci département arabe bu faculté des lettres et sciences humaines bu université Cheikh Anta Diop bu Dakar ancien ambassadeur du Sénégal en Égypte euh, déjà naka nga gisee saison bi nga xam ni moo am ca Maroc ba ñi ñàkk seen bakkan actuellement ñu ngi leen xayma ci 3000 morts ak blessés yu baree bari naka nga gisee catastrophe bi am foofu. waaw li fa xew kay eh, ci Maroc eh, lu tiis la lool ci àdduna bi yëpp ci Marocain yi eh, ak sénégalais yi parce que Maroc ak Sénégal dañu <laughs> bokk lu bare bare bari e ñu gis ne li nga xam ne moo xew Maroc maanaam ñi nga xam ne ñoo ñooy jàngat li nga xam ne mooy séisme bi fa am bett na leen lool. fi mu xewee nag surtout mooy li gën a am solo ndax euh, maanaam li ko dalee Marrakech ba Agadir côté yooyu yëpp dafa nekk di côté yoo xam ne dafa am montagne mooy li ñuy wax les Atlas te itam euh, foofu fa la yëf gën a gën a gën a gën a méttee ngir li nga xam ne suuf si day màbb kër yi di màbb ndox mi euh, maanaam kii bi montagne bi di màbb loolu moo tax maanaam métit bi ak nombre de morts yi kenn neexuñu dimbali ndax ñëpp dañ dañ dañ sóolu ci suuf loolu nag di loo xam ne li de xëy na pays yu bëree bëri amul ñoo xam nañu li am nañu moyen pour mën a euh, intervenir rapidement euh, pour mën a jël li nga xam ne en charge ñi nga xam ne ñoom ñoo gaañu wala ñi si am ay euh, tolof tolof loolu nag yaakaar naa ne dafa di nekk loo xam dafay jàngat boo xam ne bi lay àdduna bi yëpp ñoo ko war a jàngat ndax xewoon na Turquie ci mois de février bële passé ak Syrie nga xam ne euh, véritablement ñi si daañu si ñàkk seen bekken bari na lool euh, bu fekkoon ne nag euh, yeneen pays yëpp dañu mobiliser ba lu mel ni amee ñëpp mën a yónnee seen équipe yi nga xam ne ñooy def gëstu gëstu ak di di jàppalante loolu dana baax loolu Europe am na ko mais ñun Afrique amaguñu loolu mel noonu nga xam ne calamité naturelle yeeg euh, ay catastrophe yi bu amee ñu mën dal di mën a teel a jóg armée bi euh, bu Égypte nag def ci def liggéey bu am solo muy wane li ma ci jàngat ci euh, catastrophe boobu moo di ne armée nationale moo nekk premier plan lépp loo xam ne war na ko def maanaam armée yi dañu war a xam ne armée du rek pour répression wala guerre wala ak gendarmerie police mais itam dañu war a jàppale population bi te loolu la armée nationale def nekk ci kanam ci liggéey bi nga xam ne la yëpp ñoom di ñu ngi koy def ci euh, biir euh, euh, Maroc Euh, pompiers yeeg ñiy jóge euh, yeneen pays door a ñëw fekk leen ci biir liggéey bi seen loxo ñoom ñu jiitu seen jiitu yaakaar naa ne loolu tam bilan ci bilan la boo xamee ne bile war nañ ko tiire ci li nga xam ne moo xew Maroc. Euh, voilà professeur euh, li xew Maroc ko nekk lu doy waar tey jii yan conséquences la mën a am si àdduna bi maanaam répercussions yi si àdduna bi mais aussi fii ci Sénégal yan répercussions la mën a am. waaw répercussion maanaam li nga xam ne léeg-léeg man mën na ko jur bari na lool Maroc la gën a jural nag loraange. ci wàllu tourisme ndax Maroc daf di pays boo xam ne bile maanaam ñi koy ñi fay dem euh, surtout bu été bi ñëwee dafa bari ay festival yu ñu fay def maanaam li ko dalee Marrakech ba kër gaa ngay àgg Agadir zone boobu mooy fi nga xam ne fi la touriste yi gën a dem e ndax dafa am nay montagne am na géej am na am na tout euh, foofu itam xam nañu ne euh, village yu bare bare bari dañooy garder tradition yi beer beer yi ñooñu ñëpp ci côté yooyu lañu ñu euh, la ñu dëkk donc Maroc loru na ci côté boobu ci mbiru tourisme comme ni mu ci loroo ci mbiru euh, donc économie ci koom-koomam ndax tourisme boobu nekk ni loo xam ne li dana dimbali Maroc lool ci li nga xam ne mooy devise maanaam monnaie bi jógee xaalis bi jógee si bitim réew di dugg ci biir Maroc ndax Maroc dafa xaalisam du génn biir Maroc mu ngi mel ni xaalis boo xam ne xaalis local la voilà donc loolu ñoom tourisme yooyu ak njaay ak jënd bi muy def yëpp si ah, si dollar la koy def wala ci euro la koy def te tourisme bi mooy indi loolu ngoon nag loraange bu rëy la ñaareel ba loraange bi itam moo di diggante Maroc ak ñi nga xam ne ñoom la doon jëflanteel maanaam di leen jaay ak di jënd yooyu yëpp dafa taxaw taxaw na ci Maroc taxaw na ci yeneen pays comme le Sénégal tam xam nga ñun bari nañu ay euh, yëf yu jógee euh, Maroc ci ay légumes ay fruits yoo xam ne ni ay auto frigorifique ñoo koy indi ba fii jëm ñaajo di ko indi fii ba ci Castor vraiment muy lépp luy xeetu légume wala xeetu xeetu fruit nga xam ne beaucoup de sénégalais ñu ngi siy liggéey nag ndax boo demee jam ñaajo da nga gis ne ñi ëpp si ñuy jaay ay orange ki mandarine ki euh, yenn légumes yi Maroc lay Maroc lay jóge donc loolu quand conséquence la ci Sénégal ci suñu économie sax ñaareel ñetteel ba moo di ne tam dafa am euh, taxawaay boo xamee ne bile am na ko ci biir Afrique bi féete soowu jant entre Côte d'Ivoire Sénégal Mali ak euh, même Gabon nga xam ne mooy partenaire am yi gën a gën a gën a gën a am solo euh, ba nga xam ne Maroc rek mën nga wax ne sax moom dafay jouer rôle grande puissance ci pays yooyu loolu yëpp tam dana wàññeeku bu baax a baax Eh, eh, enfin xam naa ne entre Maroc ak euh, partenaire am européen yi ah. maanaam Espagne France euh, ak euh, États-Unis même yooyu dana nekk di loo xam ne li de dana am tolof tolof ci diggante bi fekk ñuy régler problème yooyu ba ñu dellu waat ci euh, seen économie dellu siwaat fa mu nekkoon voilà professeur aussi euh, ñëwaat ak ñun euh, ci relation diplomatique ak économique ci diggante Sénégal ak Maroc te tamit Sénégal ci ban anam la mën a jàppale Maroc jamono ji nga xam ni dafa nekk ci crise ndax catastrophe bi dal seen kaw waaw Maroc Sénégal nag seen relation maanaam seen jëflante yàgg na lool ñëpp xam nañu ne euh, bi nga xam ne lislaam ñëw na ba léegi te muy jaare Maroc dugg see Sénégal euh, boobu ak léegi euh, yàgg na ndax onzième siècle la ba léegi donc xam nañu ne lislaam ak njàngum arab Euh, langue bi ak civilisation bi yëpp ci mu ngi jaare si murabitin jaar ci yeneen dynastie yi fi jaar yëpp ba nga xamee ne bi lee dugg na Sénégal jóge fa law ci Mali law ci euh, ndax ñoom boo gisee ñuy wax raba mooy rabit moo di ñoom ñu ngi ñëwoon ci sanctuaire bi ñu jëkk a def ci Afrique ñu ngi ko defee ci fële Sénégal moo tax boo ko xoolee sax Sénégal da ngay gis ne ñii dëkk ci boori fleuve bi maanaam saraxule yi ak halpulaar euh, yi ñoo jëkk ci lislaam euh, ak euh, après mu door a dem ci bambara yeeg ñeneen ñi di door a wàcce nag ci boori ci wolof yi ba egsi egsi si sowu jant bi loolu du dafay wane ne nag bi duggee ba léegi loolu amoon na mais depuis lu ma ñaari siècle ñetti siècle ngi nii presque que Tijaaniya bi nga xam ne bile moo nekk Fès mu nekk di loo xam ne li dafa àndandoo dafa nekk di loo xam ne dafa dëgëral li jëflante senegal ak Maroc ndax tiijaan yi bari nañu fi lool boroom xam-xam yu fi jëkkoon euh, xam nañu ne ku mel ni El Hadj Omar Hadj Malick Maba Diakhou Ba ñeneen ñu baree bari ñoo xam ne ay tijaan lañu te liggéey nañu ci dëgëral diggante Sénégal ak Maroc ba tey jii sénégalais yëpp ni ñuy deme màkk presque la ñuy demee tijaan yi itam noonu la ñuy demee euh, fa nga xam ne file mooy Fès di ziyaara Cheikh Ahmed Tidiane Chérif te loolu itam ci plan économique bi am na solo lool ndax euh, année bu jot moo xam koor la moo xam euh, tamxarit la moo xam événement yi bu bu mu manti nekk yaa ngi dégg publicité yi ñi nga xam ne ñooy dem ziyaare ji dépenser seen xaalis foofu lu baree bari loolu yëpp tam da am na njeexital ci diggante Sénégal ak Maroc comme Maroc ci boppam ma am na fii ci biir Sénégal intérêt yu baree bari ndax gis ngeen ne am nay commerçant yu bari yu Maroc yu nekk Saint-Louis Dakar euh, euh, ñoo xam ne ñu la ñoo yor yenn façon njaay yi am nay étudiants marocains yoo xam ne ñu ngi jànge fii ci Dakar nga xam ne vraiment année bu jot Sénégal dana joxe lu mat ay ñeenti téeméeri bourse yoo xam ne marocains yi ñoo ko moom te ñu ngi mel ni sénégalais yi li sénégalais yi fay la ñuy fay kenn maanaam kenn xoolu leen comme doxandéem dañ leen xool comme sénégalais sénégalais itam bari na ñoo xam ne leen Maroc daf leen di jox ay bourse ñu lu mat six cent bourse ñu dem fële ci Maroc di fa jànge ji ñuy jàng bu jëkkoon ni njàngum arab rek la woon mais léegi dafa am njàng mi yaatu na ba nga xam ne ñeneen ñu ngi jàng koom-koom ñeneen ñu ngi jàng ni ñuy yore yore entreprise ñeneen ñi ñu ngi jàngee ni ñuy euh, sayto climat bi ak yooyu yëpp daal marok am na ci solo Sénégal nag moom li muy gën di jàngal waa marocain yi te ñu yaakaar ne Sénégal moo ko gën a man ci euh, euh, Afrique sowu jant ñoom Sénégal sax lañu ñu gën a gën a préféré sax France wala Belgique parce que ñoom seen ñiy jàng pharmacie science ak ñi jàng médecine France la ñuy dem wala Belgique bu ñu fa demul Sénégal la ñuy jëm te loolu nag dafa am na solo lool te iteen muy relation boo xam ne dafa yàgg depuis bi Sénégal amee indépendance ba léegi Sénégal ak Maroc président yi fi jaar yëpp vraiment relation bu am solo la ñu am ak moom diggante Maroc euh, bi Sénégal laa am sax indépendance moo ñu euh, si Mohammed mooy papu Hassan II euh, donc jël ci nafaam pour tabax li ñuy wax grande mosquée de Dakar nga xam ne doomam Hassan II moo ko inauguré 1962 donc loolu day wane mais véritablement sur le plan spirituel am na relation yu dëgër si le plan économique Maroc tam waxuma la jënd ak jaay rek waaye Maroc tam mu ngi tabax am nañu ay entreprise yuy tabax fii même pôle ba da du wax euh, Dagdahol Maroc am na si benn part important Maroc mu ngi ci mbiru énergie solaire di dimbali Sénégal xam nga ne ci temps Abdoulaye Wade Maroc sax di woon ne fii li ñuy wax taw artificiel maanaam bi ñu demee ba sécheresse bi am taw bi wàccetul Maroc moo dimbali woon Sénégal indi avion yoo xam ne lee dañuy provoquer taw xam nga loolu dama koy fàttali pour wane ne véritablement relation yi xoot na Sénégal nag gàcceel ngaalaama ci loolu ndax intervention Sénégal ci bitim réew xam nañu ko l'ONU ak ñëpp suñu armée yeeg yooyu dañ leen di solicité ak secours yi léegi Sénégal yónnee woon na benn équipe ba nga xam ne li xewoon Maroc te xewoon Syrie ak euh, euh, Turquie bi Sénégal yónnee woon na fa ay équipe équipe boobu Sénégal proposé na ko Maroc Maroc nag moo si répondre agul si si suma xam-xam fi mu toll nii comme Maroc répondre wul France bi nga xam ne tam proposé na ko envoyé kay équipe euh, répondre agul léegi ña fa nekk ñeenti pays rek la moo di euh, donc si jëflante boobu muy Espagne di Angleterre. Euh, di euh, Qatar ak Émirats arabes unis donc loolu tam Maroc dafay wane ne moom am na moyen souverain na jël na arméem jël na euh, maanaam mooyam yëpp pour jéem a jé jéem a wane ne moom dëkk boo xam ne bi ne mënal na boppam ci yenn côté yi mais bëgg na ndimbal waaye ndimbal yi nag dafa am fu ñu koy jaaral am ay charte yu bu ko yu mu tëral moom ci boppam waaye nag africain yëpp nag ñoo waroon def loolu mën daal li ma ci kii mooy non seulement diggante Maroc ak Sénégal Sénégal def na mu war a def ñu ngi xaar Maroc mu répondre bu ñuy soxlaa ñu yónnee ko équipe loolu moom lu baax la te pays africain yëpp dañ ko war a roy nag ndax l'union africain lii bi mu xewee ñoo mu euh, ngi déglu lan lay def amul dara luy def lu dul ne maa ngi exprimer suma solidarité ànd ak Maroc di ko masawu non yaakaar naa ne l'union africaine avant l'union européenne di envoyé dara mais pays africain yi bu ci am tolof tolof bu mel nii union africaine bu pays bu nekk joxe woon cent million wala deux cent million dana nekk ndimbal pour loo xam ne le dund beek solu beek nekkin bi gën a rafet Afrique daal war na xoolaat ne maanaam suñu jëflante du mbiru politique rek dajaloo président yi ñu waxtaan après ñooy mais peuple yi seen bopp maanaam nit ñi nga xam ne ñooy dund ci dëkk yi bu ñu nekkee ci tolof tolof maanaam Sénégal mën a envoyé xaalis mën a envoyé Ablaye dafa créé woon lu ñuy wax AA maanaam Afrique aide Afrique ah ndoom si yàlla si yàlla na ko yàlla yërëm Latif Guèye moo ko moo ko jiite woon en 2001. loolu xam nga loo am solo la maanaam africain yi di jëflante ci seen biir di dimbalante wala bañ di tàllal loxo rek di xaar Europe wala États-Unis ñëw dimbali leen mais ku nekk duggal sa loxo sa poos génn pour jàppale loolu yaa France Sénégal def na ko te loolu vraiment ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax te itam relation Sénégal ak Maroc daal yaakaar naa ne si gàttal nekk na loo xam ne li toujours mu ngi jëm kanam masul am benn tolof tolof ci euh, depuis mille neuf cent soixante ba waxtu bi ñu toll nii ba ñuy jëflante ak comme ñaari état voilà merci beaucoup euh, professeur Babacar Sam en tout cas ñu ngi lay remercier bu baax <laughs> voilà professeur may fàttali ni professeur nga ca université euh, Cheikh Anta Diop bu Dakar ca faculté des lettres sciences humaines département arabe nekk ancien ambassadeur du Sénégal en Égypte merci professeur Babacar Samb jërëjëf